communion wala da ngay changer tur bi communion bi doxatul yow kenn picceetu la kër gi amatoo fi valeur te gis nga booy boo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li lay yoot bu doon maa yow damay seey génn gàll bi ndijaay badu bokkul ak sama ndijaay mi ci kër gi gis nga mu porter la plainte tëj la ràpp ci kaso bi maanaam nëbb la naaj bi jant bi mu nëbb la ko ak mu naan ci ndox mi la yemale ñi gën a néew ci ay xaritam ay procureur lañ ñii ay gendarme lañ ñii ay militaire lañ hmm. te moytul sa bopp ndijaay bat lu mu diggee nar ko te lu mu nar dana ko def hmm. te gis nga bés bu porté plainte ba mam it ñëw témoigner hmm. ah harcèlement yi nga doon def ak bundu xataal bi ñu bundu xataal ñun yow waxuma la non seulement mami mais ñun ñun son coono gi ñu tegoon ñun bu ñu témoigner mami ñëw témoigner yow sa li des sa dund ci kaso bi ngay dee. Hmm. amagoo jabar xam naa ne doo am doom. Hmm. bu doon maa yow nga ut solution ci lii ma lay wax dégg mu baax. Hmm. mais booy cest à man du sëy bi quoi du sëy bi quoi. Ah. mais man foog ma des ci kër gi. pour lan pour di gis mami chaque jour rek quoi. oo yow yow comédien mënoo bàyyi mami mami yow war naa ko mami bëggu la man bëgguma la suñu waa kër ñun ñëpp kenn bëggu la ci yëppam hmm. camion yow lan la mënoo arrêté hmm. am bëgg mami camion waa kon ok yow kan sa sëriñ hmm? doo seet ci yàlla ak yonent bi am am nga sëriñ yow ku sa sëriñ sëriñ laa am nga sëriñ. kuy sa sëriñ. ah mooy sa sëriñ. du seet ci euh, nga bàyyi mami. mami moo talatul sax ay bëggante ay nobanteeg yooyu mami benn nit la bëggoon ci àddina. Mm-hmm. gis nga mami fi mu toll nii xam nga lan moo ko gën a yomb. Mm-hmm. nekk ci église yi doon sœur sœur. xam nga sœur mooy ñooñu nga xam ne duñu am jëkkër duñu am jabar yàlla rek a leen ñor. Mm-hmm. mu doon sœur moo ko gën a yomb. waa raw moom bu doonee sœur. mën na nekk abbé ci même église bu mu nekk. kër pourquoi nga ñàkk jom. problème. noonu nga ko gisee. Hmm. wax nga ok. Hmm. Hmm. communion. sama nijaay Ndiaga Mbaye am na lu mu daan wéy sama maam maa ngi juum sax sama maam Ndiaga Mbaye. bëgg naa la. bëgguma la loolu jaarul saw. kaay jubóo man bàyyi ci xel maa ngi ñëw ñu waxtaan dégg laisse car mes pensées et mes m'ont tous trahi. Quand le monde m'a tourné le dos, laisse-moi partir loin d'ici. Je veux plus encore me souffrir. Car mes pensées et mes rêves m'ont tous trahi. Je suis coincé dans mon bélier, on dirait que je marche en recul. Je nage dans mes larmes et ma vie est pleine de soucis. Je marche sur les flammes, c'est dans les rues que je m'endormis. Je reste toujours debout, poursuis mes rêves au bout. Maintenant les temps sont les amis en secours. Je n'hésite pas de me relever quand cousine. waaw cousine. soo paree nga ñëw dama laa soxla woon. waaw d'accord j'arrive. xam nga tamit waaw d'accord. booy ci loo ne. lu koy doyati. mami. dama bëggoon ñu waxtaan. Ah. Mhm. lan la da nga xaw a triste di ay waay koo wax. kooku du triste. xam man sama xarit ah, loolu moom dafa leer. te sama waay j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mm-hmm. parce que tu es mature. on peut dire sax yow yaay suñu yaay fii waaye yéen ay samay rek yéen laa am. Mm-hmm. donc dama bëgg li ñuy waxtaan tey mu am sama diggante man ak yow. t'inquiète sama diggante yow la yow man gaawee ma man rek ndax yaa ngi may jiital. yàlla. man de fu mu ne nii yaa ngi may stressé stressé goo xamante ne. dama ii. fu wax jëm yow. bu soo wax wax nank Kara li ma la yow laaj na yow de lu dee si néeg mën nga koo nëbb waaye bu nëbbee rek xeeñ man de waxuma sax famille bi mais monde bi yëpp dinañ ko yëg sama nijaay moom waxuma ay waxam xam nga moom daa lekk wax dina wax ba sax génn ci gémmiñam ci. waaye yow sa sama copain. yow fii musuma la fi gis sa copain seet si la musuma gis góor dugg fi di la seet toujours daal yow yaay gàddu sa saak di dem nga naan sama copain yow jigéen ju baax day toog ci biir këram góor yi baax ñoo fekk ko fa teral ko mu xam seen waa kër xam famille lii moom mënuma boole ci lu may denc sama nijaay moom foog ma woo ko wax ko ah ay mami la lii dangay toog di ko nëbb doo ko wax sama nijaay solution ban solution ma fi am. duma ko denc de dama lay teel a wax nag. seetu seede ne jaay jaay. Eh, eh, buur hmm. jëlal. lan kay mbalit. yow booy yow yaay kan ba naan ma sa mbalit mi ngay sànni fii bul ko sànni fii te man déglu ma rek man dinaa bàyyi sama mbalit ma sama kër. nit ñi dem ay voisins nit man may am ay voisins mbalit su ma amee mbalit fii laa kay sol gis nga góor gi man xulóowu ma xeexu ma ma xamal la benn affaire gis nga Sénégal. esprit bi ñu am dañ ko war a dépasser. Hmm. gis nga lii muy rigole nga xool ko ba mu leer na la rigole la. Hmm. boo jëlee sa mbalit teg fii. sa moroom ñu jël mbalitam teg ñaanuma ko yàlla bu duggoon fii fatt fii ndox mi war a jaar ci koñ yi lay mujj rogalaat te mën na créer jàngoro yoo xamante ne du doon lu ñu gënal sa doom ci koñ bi lay foowee sama doom ci koñ bi lay foowee te mën na indi yeneen dégâts te lii ma ci gën a metti mooy mbalit mii dañ ko war a di trier def ko ci ay saak. jël ko yóbbu fa nga xamante ne fa la ñuy teg mbalit yi teg ko fa bu ko defee camion yi di ramasser da nga leen di yombalal seen liggéey. booy dana la wax man damaa ñàkk fayda ñàkk fayda boo xam ne damay topp di trier ay mbalit di wër ay oto mbalit mel ni ku deful dër di fa sotti mbalit te mbalit moom mën a sotti si mbalit ni ñëpp. ñàkk xama waral loolu. Hmm. gis nga amul fenn fooy dem ci àdduna. Hmm. fu ñuy jël mbalit def ko déchet. am na système de recyclage boo xam ne bu ñu ko defee tey jii suñu réew mën nañu indil engrais naturel. te yamul ci loolu de mën na créer yeneen emploi yoo xam ne tey mën nga ci yëngu man mën naa ci yëngu suñuy sët sax mën nañ ci ñëw di yëngu. <laughs> yow booy xanaa étudiant nga. waaw waaw loolu bett ma si yow. xam ngeen étudiant yi na leen nekk si dëkk bi ruube dëkk bi ba ñëpp di leen wooy waa ruube. di toj bii si jékki-jékki këree seen ngénte doomu tubaab yoo xam ne teguwul leen ko fenn. kenn bàyyiwul leen xel si dëkk bi léegi bu ngeen bëggee fàttali nit ñi seen bopp si ngeen di créer ay géréb di sànni xeer di taal ay. pour da ngaa xamul rek. yow nag yaa xamul man xam leen moo tax may wax lii ngay wax dinaa la baax comme seen jàng baaxul dinaa la wax benn baat boo di koy jàpp. combien notre corps combien de parties. <laughs> xam lu mu 14 eh, la boo demee waxal sa baay baax la dimbalee loolu. dama la bëgg xamal ni. Hmm. tey lii or pur la. ok doom comme mbalim or la yow jëlu ngay xuloo jëlal mbalim nga jox ko sa ndey mu tax. mën nañ cee lekk comme mën nañ cee naan. Eh, désolé man xaw ma ko may wax wéeru. yow mbalit noo ciy lekkee aka naan. ah te yow leen da nga may dimbale wax ma foo dëkk ci koñ bi ma topp la dem ba seen xam ne fii mooy seen kër ma xam naa ne bientôt da ngay dee ndax yow mbalit ngay dunde mbalit loo xam ne ay sax lay génne nga lekk ko dee mooy ñëw seen lekk sa ceebu dëkk daal kàlla mu des ba muy moom dimbale ma lool rek góor gi hmm. égout bii nii hmm. ci égout ONAS la bokk lii mooy tax évacuation eau yi ndox taataa yu salte yeeg yooyu yëpp di mën a di dem ah. te loolu sax dañ ci jël ay matukaay yu leer naññ teg ko ci Eh, waa ogas bu nekkee ñoom ñoo la yónni. da nga waxuma ogas te onas laa wax. Eh, onas gonas paas pataas laa si yemale. dégg nga ñoom ñoo waroon a jël seen bën-bën bi utal ko lu ab kibiir bu ko defee kenn du si dugal dara la fekk nag tëj na ko luñ si bëgg a dugal da nga ko dugal ku bañ dugal nag da tëj. moo ne dañ ko doon tëj de. Hmm. nit ñu mbool ñu mel ni yow. Hmm. ñoo fiy jaar guddi lu ñu tëj lu ne ñu tëj ko. lu mu ci gën a metti mooy dañ koy yóbbu dem di ko jaay feeraay ci ay prix yu ñàkk fayda te mën na indi loraange boo xamante ne ci dëkk bi hmm. supposons tey boo waroon dox sa soxla hmm. faxa salu fii damm hmm. ay problème rek la lay indi booy kay yow la nga war a wax du man nakati yéen kay sàcc yi sàcc seen kiwéer yi ñooñu ngeen war a lijjanti ndax ma ne réew mi lu ko tardee sàcc si si la koñ bu dellu ginnaaw sàcc moo tax sa koñ ba dellu ginnaaw dégg nga te loolu sax dinañ ci jël matukaay yi ah. ndax dinañu jël ay nit yoo xamante ne ñoo fiy toog di ci veiller di di pour fii nii waaw xam nga doom xam nga lan la yow da ngaa am jot di wax te man duma sa morom dégg nga comme yéen xam nga ñu leen sonal bul ñoo fekk ma fii may tuur mbalit parce que boo xoolee mbalit mi ba mu fees leen nekkul ma maa fi sol mbalit ba fees am na ñeneen ñu fi doon tuur mbalit laata man ma fi ñëw la moo tax waxoo ñu noonu ñu bàyyi mbalit mu fi xam naa nga gis ma ak sama tuutuwaay nga ne xaaral ma profité si kii waqalu ma ko ba wax du fi amee nag ndax déglu ma rek ndax seen dëkk bii nii lu ngeen war a lijjanti moo bëri nu ngeen di doxalee baaxul nu ngeen di doxalee normalul seen tur dëkk bi sax su boppam normalul te bu ma doxaat nga may wo waa dafa façon paa la ci may ci lay indi monde entier